pour ñëw ci sa question le discours du président aux Nations Unies pour man discu discours de forme la woon avec euh, beaucoup de diplomatie mais sans grande surprise li ma ci jàngat mooy que ne tàmbali na par faire l'état du monde wax euh, affaire u euh, pandémie wax affaire u terrorisme wax affaire u guerre Ukraine et cetera wane li gàllankoor àddina bi globalement wax ci affaire institution yi yore lënk finance mondiale bi ak économie mondiale bi les institutions de Bretton Woods wane ne war na am une meilleure gouvernance économique financière et politique pour mu am un meilleur équilibre dans le monde ñu bañ a def rek ne dañu am une monoculture nii la ñu war a def pour que àddina bi jaar nii c'est très bien loolu yëpp